le moment où euh, ngeen nangu dem ci dialogue bi euh, nangu lancé et puis bokk ci procédure euh, modification loi bi ça veut dire que nangu ngeen sort bi ñu leen tegoon <laughs> sort bi ñu leen teg en 2019 nangu ngeen ko non mais sort bi ñu teg en 2019 bi ñu ko tegee ñun tooguñu 2017 ba 2019 Khalifa bu muy génn prison ñun tooguñu lépp lu luñ mën def nañ ko ci wàllu xeex ci communication jàppale xalifa fa mu nekk donc dem si dialogue bii nii booba temps ba muy nekk prison amoon na dialogue mu ne Cheikh Gueye Saliou saa dem si yàlla Idrissa Diallo dem leen ci dialogue bi ci turu taxawu Sénégal ñu dem fa ñoom Soham Wardini maire Dakar dem fa naa ko maire Dakar boobu temps xalifa mu ngi prison mu ne dem leen ngeen dialogue au nom taxawu senegal donc jam dialogue loolu bees si ñun dafa bokk si une tradition démocratique ñun dañuy gëm ne lépp lu mun a am ci réew mi dañ ko waxtaanee dañ ko wax dialogué te may mun a bu ñu opposition amee problème en général dañuy activer deux leviers benn bi mooy le levier maraboutique dañu sol suñu dal wër kër dina yëpp dem na leen président Macky Sall li muy def du dëgg du yoon ni mu yoree dëkk bi du dëgg du yoon wax leen ko mu wootee ñu waxtaan beneen levier mooy la levier diplomatique dañuy wër ambassade yi consulat yi surtout européens États-Unis di boole Macky Sall ci ni mu yoree réew di invité à ce que mu toog ñu waxtaan chaque fois opposition loolu lay def ñaareel bi mooy président moom bu demee ba nangu oto dialogue ça veut dire que le pouvoir en place a des difficultés amul benn pouvoir buy am jàmm di gérer normal di woote dialogue bu woote dialogue rek c'est déjà une victoire de l'opposition donc bu woote le courage pour man mooy président Macky Sall bu wootee dialogue ñu dem uyu ko. <laughs> changé ngeen ton de saa non non non non non non a un changement de ton. pourquoi mais rëccagu leen de. ban ton lañ changé. da ngeen changé ton parce que quand Macky Sall bi mu wootee dialogue. seen discours mooy da ngeen doon rafetlu le fait que mu ne mu woote nekk nekkuloon woon di ko wax ne d'ailleurs pale pale la leen dajale mu ne leen da ngeen ma koy ñaan ci njekk ngeen di non non xaaral rek non non confondre ma ci wàllu mandat bi mais Macky Macky Sall ba mu toogee palais dafa ne dama leen tàllal loxo lépp la ñuy waxtaanee waxu mandat bi sax ba leen ma ko ñaanee ci njëkk te fan yi yëpp seen discours moo doon da nga doon félicité wu ngeen ne dialogue euh, c'est une valeur démocratique euh, bu ñu war a entretenir dugg na fii génn na fii vous n'aviez pas dit à l'époque que cette Macky Sall dafa woote dialogue parce qu'il avait un problème non dafa nag dafa nag wax la man je fais mon analyse personnelle wax naa ko ci yeneen plateau j'ai dit que à chaque fois que le pouvoir en place appelle à un dialogue ça peut difficulté te loolu Djibo Ka moo ma ko jàngaloon 2015 ba ñuy woote dialogue ban difficulté la ñu amoon wax naa ko. 2015 ba ñuy woote dialogue ban difficulté la ñu amoon ñoom. wax naa ko il venait de rafler. Euh, mu de gagner euh, les élections les élections les élections locales bien qu'ils ont perdu euh, presque presque presque Dakar. Ah, te Macky ba muy woote dialogue boobu fekk na raxas na PDS ba mu set. donc dialogue bi la utiliser pour mieux. Euh, dëpp ci mu PDS non non xam nga ñun dama lay expliquer dama lay expliquer président Macky Sall. dama ne la wër na fi dialogue du benn du ñaar mais mille 2017 xaw ma 2019 boobu ñi bañoon dem tey demoon nañ dialogue boobu dëgg loolu dëgg bañoon dem tey ñëpp a nga fa woon ci dialogue boobu donc loolu du ful wees. mais boobu non ma ñëw rek ku nekk ak sa référendum loolu nañ ci ñëw dama la expliqué. jëppale taxawu Sénégal changé wu ñu discours mën nga génne vaar nga xool ndax ñu changé nañu man depuis lors sama kàddu matul changé. nous sommes des opposants à Macky Sall et à Benno Bokk Yaakaar démb tey ak ëllëg bi ñuy dem ci dialogue bi sànq dama ne le courage politique mooy lan pour man nga dem ca Macky Sall mu woote nga wax ko sa ay dëgg dañ fa demee lu ñu ko wax Khalifa dafa ne ko troisième mandat bi dañ ciy wax yu taawal ci muy benn ñaareel bu ne ko dañuy wax ci parrainage bi ñett bi ne ko dañuy wax ci élection inclusive ñeent mu nekkoon dañuy wax ci les détenus politiques il a eu le courage de le dire devant Macky Sall man loolu moo ma gënal nga toog sa kër nga daw ma jalo parce que dem jalo aussi kenn forcé wu la boo demee waxtaan poser ay conditions poser say problème bu ñu ko résoudre baax na sinon nga dellu si da nga nekkoon. ah dem ngeen jalo. oui. dem ngeen jalo.